bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli nu ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Fallilou mi ngi gane jamono ci atum 1921 ci Touba moom mi nekkoon kenn ci leeru sëriñ Fallou Mbacke mi nga xam ne kenn la ci leeru Serigne Touba Cheikh Ahmadou xaadima Xaadimu Rasuul ak soxna Xari Sall ba mu gënee jamono woy juróom bu góor wa di sëriñ Fàllu Mbàkke dal di koy dénk rakkam ja sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke mi nga xam ne nii moom la jox aw turam ginnaaw bi ci la ko sëriñ Baara Mbàkke dal di ko yëkkati teg ko ci loxo yi ku ñuy wax sëriñ moo du Amar mi nga xam ne ma nga nekkoon ca dëkk bu ñuy wax bareel Kër Samba Jaw nekk dëkk boo xam ne nii ma nga ca wetu Ngaay Mexe moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke nekkoon ku teel a suubu ci liggéeyam woy juróom wu sell wa di sëriñ Fàllu Mbàkke gàlloo woon fa ay mbir yu am solo ñoom la sëriñ bi gënoon na wóolu waaye tam doon leen dénk ay liggéeyu yu am solo yoo xam ne ni day laaj ak pastéef ak ak njàmbaar moom juróom-benneelu xarit sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul dem ay yoonu yoon baytulaali xaraam ca màkkatal mukarram foofale sax ànd na fa ak ki nga xam ne ni moom moo di way juróom moo di sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke waaye terewul sëriñ Fàllu Mbàkke daan ko boole ak nit ñi nga xam ne ni at mu leen daan yóbbu ca baytulaali xaraam moom sëriñ Baara Mbàkke mi mu daan nekk seen ab gidd mu peeg loolu li nga xam ne moom moo di kàllaamay arab waaye itam kàllaamay nasaraan loolu lee yombalal ko bu baax a baax a baax tukki yu bari yi nga xam ni daan na ko tukki fépp ci àdduna wërngal këpp loolu le sax yóbbu ko ba boppam ubbeeku lool ci lu bari loo xam ne dana ko gis te bitim réew bëgg mu daal di am fii ci dëkk bu sell bi di Touba. moom Alaaji Baara bëggoon lool organisation waaye tam nekkoon ku tege ci aw yoon waaye tam doon teg nit ñi ci aw yoon liggéey liggéey bu rëy bi mu nekkee xalifab sëriñ Fàllu Mbàkke ñu ràññee woon ko ci am pasteef ak fullaak fayda waaye fonk lool jullik ajjuma daanaka li ëpp ci ak dundam ajjuma ju nekk day jullee ci jumaa ju mag ji di jumaay Tuuba taq gu taq ak bëgg mu bëgg sëriñ Fàllu Mbàkke way juróom wa tax ñu ëpp ci ak njabootam mu tudde leen sëriñ Fàllu Mbàkke ñu ràññee woon ko lool mu bëggoon njabootu sëriñ Tuuba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul waaye tam joxoon leen cër bu mat sëkk Mbacke mi ngi ñu dëddu ci fanweeri fan ci weeru juin ci atum 2010 fanweeri weeram yi nga xam ne def na ko ci xilaafa Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nekk juróomeneelu xalif waaye itam nekk sët bi njëkk bi toog ci kanamu jal bi loolu lee di jooyloo murit ci ba tey jii noppeeguñu ngir namm Mame Bara Mbacke Falilou ginnaaw bi mu fi jógee nag a xilaafa gi mi ngi tegu ci loxoy Serigne Sidi Makhtar Mbacke ñu gën koo xam Serigne Cheikh Mati lay Mbacke yàlla nañu yàlla fayal leen